كان آه، ونبين نبين لهم أن هذه الجلسات القرآنية رمضانية تعودنا على إقامتها في رمضان حتى وفي غير رمضان عادة من آبائنا عادة من أجدادنا وعادة آه؟ وعادة من سلفنا الذين تعودوا أوه. تفصيل تعودوا توصيله رسالة الله إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ابتداء بقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو كلمة بلغوا عني ولو كلمة وخير ما يستند إليه الإنسان المسلم لتوصيل رسالة الله هو القرآن الكريم فالقرآن هو الكتاب الأصم القوي الجامد الذي جمع كل ما يحتاج إليه الإنسان في أمر دينه وفي أمر دنياه فلهذا كان سلفنا الصالحون أخذوا على عاتقهم آه، آه، واجب توصيل هذه الرسالة اعتمادا على تفسير القرآن أو, أو, أو تفسير القرآن أو تقريب القرآن إلى أفهامهم تقريب القرآن إلى آذانهم حتى يستطيعوا هم أنفسهم أن يتلمسوا آه، من أنفسهم حقائق القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وهذا لا يتم إلا على إلا من باب واسع يفتحه لنا العلماء السابق آه، بناء على سلف آه، على أعمال سلف سبقوا وهذا ما نريد أن نواصله لا أننا ندعي أننا نحيط بالقرآن علما ولا ندعي أننا أيضا نفسر القرآن لأن القرآن هو الذي يفسر نفسه في كل زمان وفي كل عصر إنما فقط كما فعل سلفنا الصالحون نريد توصيل آه، آه، البدايات الأولى للقرآن ولتقريب الأذهان ولتقريب الأذهان إلى معاني القرآن هذا فقط ما نحاول تحقيقه لنا ولأمتنا التي آه، آه، التي لا تتم لم تتمكن بعد من اللغة العربية حتى حتى تستطيع أن بنفسها أن تعلم نفسها بنفسها لم نصل إلى هذا المستوى بعد كما للعرب أنفسهم الذين اللغة لغتهم يستطيعون أن يفهموا آه، فيها إذا إذا أرادوا أن يفهموا وهذا آه، ما نريد تبيينه لل التلفزيونات العربية التي حضرت إلى هنا وكان أباؤنا يفسرون العربية القرآن بالعربية فيه موجود وهو إن شاء الله مع المستقبل إذا لم يكن أنا سيحاول من يأتون بعدي أيضا لزيادة <coughs> لزيادة بنية على لبنة على هذه البنية التاريخية المجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 gis nga moog bitam ña ah, nañ mujjee bañ alako naka noonu loot naka noonu aat ñoom ñëpp seen nit ñi alako nañ ah, ba tey mu ngi ne nettali ci diggante Shuaybu moom tamit ci yonent yi nga xam ne yàlla yoon na leen ci nit ñoo xam ne seen mujj ak ñoom mooy ne dañuy alako rek yonent yàlla ba nag gis nañ ne yàlla nga woon ci ay ay commerçant ay ay commerçant ay jàppkati douane ñooñu ci la ko yàlla yónnee won de te commerçant yi nag ñu jubal ñu jubal seen seeni jëflante ak nit ñi loolu la Shuayb bu ñëwoon bi jàngale ci wet ak li mu doon jàngale nit ñi nen nañ gëm yàlla te moom rek eeyoo ñu yaamu ko loolu moo doon moo doon yonentam jàppkatu duwaañ nag ci nit ñi nga xam ne ci bàkkat yi nga xam ne bàkkat yi gën a màgg ci lislaam ci la bokk duwaañ duwaañ duwaañ yi duwaañ yooyu nag kenn du leen suñ duwaañ yi duwaañ yi ñoom dañ leen a tëralal xam-xam ñu jaar ci jàng ci li tax a jóg douanier bi mooy lan mooy protéger euh, euh, euh, économie réewam su fekkee ci loolu lañ nekk waaye nag su fekkee ci leneen lañ nekk nag jikkooy nit rek la waaye li leen li leen tax a jóg daal mooy defar defar de buñ defaree ñu ngi defar lu baax kuy defar lu baax yàlla mën na laa nangul wala mën na laa bañ a nangul itam kuy def lu bon nag. mooy koo xam ne lii moo ma tax a jóg waaye def moo ko man lii laay def di jël alal nit ñi di ko nangu bu boobaa itam yaay du waañ bu bon bon boobu nga xam ne rek moo gën a xiis ci li muy def ci àddinaam de ba mu ko defee nag xaala wax almara woy tedd ña ñu ngay wax ak yonent yàlla Shuayb alladina ñaaña istakbaru réylu nañu min xaw mi yi ca nitam ña réylu nañu walis gëm yàlla ne ko la nuxrijannaka wallaahi danañu génne la yaa Shuaybu yaa Shuaybu min ah, wallazina ak ñaaña amanu gëm nañu maaka ànd ak yow min xarit naa ngeen tukkee ci dëkk suñu de yow Shuaybu boo bàyyi bàyyiwul li ngay wax xam nga capitaliste yi ñooy capitaliste yi jamono bu nekk rek lépp loo xam ne daf lay nar a jaaxal nar a jaaxal seen njaay ak seen njënd ala foog ñu jóg ñu jógal ko ay pexe su ko defee ñoom tamit gis nañ ne ay capitaliste lañ ay boromi alal lañ alal ci la ñuy yëngatu ak façon buñ ci mën a yëngatoo ku ñëw nag di leen wax ne réglé leen ko nii tërale leen ko nii ndax boo ngeen ko tëralee na le du baax ci nit ñi ci yéen lay baax waaye ñoom lu baax ci nit ñi taxu leen a jóg lu baax ci ñoom rek moo leen tax a jóg de mooy ci jamono bu nekk nag capitaliste yooyu bi nga xamee ne nag choix bu jaaxal na leen ci lim leen di wax di leen tëkku ñu ne ko nag léegi nag da ngay noppi rek wala ñu génne la dëkk bi yàgg ñu ànd ak yow ñëpp tëjal sa gémmiñ lañ wax soo ko mënut a tëj danañ génn danañ la génn dëkk bi de te du foofu sax bu leen am ci génn dëkk bi de aw la taw dana iki ba da ngeen mujj fii ti millatina jëm ci diina suñu de walla sax ngeen mujj nekk wala ngeen mujj rek mel ni ñun ci suñ diina de waaye duñ nangu nga nekk fii nag naan dag ñuy tëralal yoon boo xam ne moom lañu war a jaarale suñu yëf naka la ñuy jaayanteeg géndanteeg loolu ñun laajuñ la ko ñun euh, nga tëj sa gémmiñ rek ne muut moom lañ la laaj de wala sax bu du loolu nga mujj nekk nga mujj nekk kenn comme ñun rek de aw la taawu dan na kenn du ko firee ni baat bi tëddee taawu dan na mooy nga dellu si te mus ta nekk xéefar bay delluwaat ci kéefar bon nag aw la taawu dan na ba nga mujj fi mi naa ci suñ diine de nga mujj rek da ngay mujj rek mel ni ñun de ba ko defee nit Shuayba yaa ngay tontu xaala ñu wax ne awalaw ndax dañ mujj nekk ci seen diine yi awalaw walaw kun naa awalaw kun naa di leen nekk nañu kaarihiina di way sib loolu de moo ndax da ngeen a bëgg ñu dellusi ci seen diine yi nga xam ne diiney baatil la du diiney dëgg ngeen bëgg ñu dellusi si nga forcé ñu dellu delloo si ñu ci loolu ñun duñ ko nangu de ñoo bañ ñun tamit de moo tax gis nga waxkati dégg ak wax waxkati caaxaan waxkati ka ootekati dégg ñoom seen oote yëpp mooy ne ah, ah, laa ikraha fi diini laa ikraha fi diini kenn ñun yonent yi forcé wuñ kenn nga ngir nga ñëw gëm suñ diine wala nga ñàkk ñëw gëm suñ diine li mën mën di am daal mooy dañ leen di oo rek man caa fal yumin mancha man caa fal loolu la waaye gis nga ñii nag ñoom dañoo wax ne dañ leen di forcer ñu dellu si ci ñu ñu ñu ñu nekk ñu nekk ay ay effort ni ñoom par force loolu lañ leen bëgg a def de moo tax boo demee ci euh, ñi ñi jàngale jamono bii nga xam ne école occidentale moo moo moo sang moo sang àddina bi yëpp. boo demee seen programme mu njàngale lañ am seen programme mu xam lañ am seen programme mu doxal lañ am yépp seen programme la ba nga xam ne mën ngaa wax ne nit nit nit kese kese dootu gis bopp gisatut boppam lu dul rek ci biir noonu ko tubaab di gisee rek noonu lay gisee boppam bu fekkee mënta gisee boppam noonu bokkatul ci nit yi nga xam ne. nit ku mat nit ku nit ku mat sukkandiku la nit ku mën a sukka ku jar sukkandiku la nit ku jar a àndal de bu ko defee nag gannaawul noonu la demee noonu la ñuy forcé ñoom seen njàngale noonu la ñuy forcé seen civilisation indiwuñ ko ci jàmm bu la neexee nangul bu la neexee ba a la nangu déedéet dangay ngay nangu rek par force wala nga xam ne dinañ ko jëflanteeg yow ci doole de mooy seen wax boobu ñuy wax ne ñoo ko wax ah euh, cesse d'être toi et sois moi loolu rek la yow génnal ci sa bopp doo dootoo dara parce que amoo nekkal di man de soo génnee ci sa bopp nag ne dangay nekk keneen doo ko nekk mukk mukk mukk mukk waaye da ngay nekk ci diggante bi rek mel ni baaxaañ ba muy roy pitax ne ni muy doxee ndax doxam bi dafa rafet amul doxinu pitax wa te ñàkk na doxinam wa moo tax ñoo fi gën a ñaaw doxin de moo tax itam boo demee ñi nga xam ne nangu nañ nàmp di di joxe joxe guñ dara loo xam ne nit mën na cee la nga mën a si ñoom la bàyyeekoo de awalaw ko naa di ki nekk nañu kaari xi ne di way sib dellu googu dellu mujj googu seen diine duñ ko nangu de ndax suñ ko defee xadif taray naa bon duut nañu àlallaahi wala yàlla kasiban ay nar suñ ko defee bu boobaa fenal nañ yàlla de in in ut naa ne mujj nañ si millatikum ci diine seen bés bu ñu demee ba ba nekkati seen diine bon nga xam ne ñun xuruj nañ de te duutal nañ yàlla loo xam ne yàlla waxuñu ko yàlla lim ñu wax mooy ne nañ koy jaamu moom daal amul bokkaale nañ ko gëm moom daal amut kenn ku ko wéttal amut kenn ku ko dimbale moom moo bind moo amal moomi tamit mooy sàmm lim bind ba ba ba ba ba ba na mu koo jeexal mu jeexal ko waaye nga bàyyi fi loolu nag ne da ngay jaamu leneen loo xam ne yàlla waxula ko bu boobaa yow yaa duut waral yàlla yaa wax doo dëgg waral yàlla de ah illaa insha allahu nara la som na ko yàlla naa borom kii borom sunu de lu dul nag fekkee soob na yàlla mu bëgg toroxal bu ñu yàlla toroxalee bañ dellu si loolu nga xam ne ñun ñoo torox rek i soo coobare yàlla ñëw na ci suñu torox taane rek torox nañ a xëpp na rabbuna borom sunu kullu shay'in lépp la fay mën ci xam yàlla xam na lu nekk loo loo xam ak loo xamut ak loo xam ne mën ta toog ci sa xel sax yàlla xam na loolu de waaye Ah, yow bi nga xam ne nag doomu aadama sa xam-xam xam-xam bu emaay la sa xam-xam génnut lii ëmb lii ëmb rek foofu la sa xam-xam nekk fi ngay toll di nga gis rek ak li nga mën a laal ak li nga mën a dégg foofu rek la sa xam-xam toll sa xam-xam génnut foofu de booy am xam-xam nag amee ko ci yooyu nga xam ne moo lay may xam-xam su ko defee nag nga boole ci xel moo xam ne am na itteey lii ma xam dama koy gën a xóotal dama koy gën a gëstu damay gën a dem ci biira a biir biir ba xam ci <coughs> loo xam ne <coughs> danaa ko yokk ci xam-xam de su ko defee ni gëstu gëstukat yeeg euh, <coughs> seetkati xam-xam yeeg critique yeeg loolu yëpp ci wut xam-xam la critique ci wut xam-xam la wax itam ci wut xam-xam la soo waxee ñu ne la bàyyi la sa wax rek ne la noonu la su ko defee da mun na am nga réeral nit ñi waaye su fekkee wax nga sa wax keneen ne la ah wax bi de boo ko waxee woon nii wala nangam ak nangam wax bi de keneen tam wax loolu keneen tam wax loolu loolu dafay xóotal xam-xam tasaare ko waaye boo waxee rek ñun ñëpp nangu nañ loolu téere yàlla bi rek lañ ko war a defal de yonent rek lañ ko war a defal de mais keneen ku dul yonent ku yonent Seydina abu abu abu Seydina Ahmad ibnu Hanbal wax na mu ne yow bu ma déglu bul déglu imam malik bul déglu imam shafi bul déglu xanafi seetal li la sa xel di wax de seetal li la sa xel di wax bon nag yonent nee na ku nekk dana la fenal ba mu des sa xol de sa xol du la fenal mukk bon liy jógee ci yow ci sa xel ak sa xol loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg gi nga xam ne bu la ci yàlla dollee leer mu gën a leer nga gën koo xam de waaye nag su fekkee nag dañoo gis ne téere euh, lislaam téere la boo xam ne dafay tardeel ay nit dëgg-dëgg ñoom ñoo ñoom ñoo ñëw pour tardeel nit ñi waaye lislaam dafa ñëw pour dolli nit de <coughs> ndax lan seetal fa lislaam jëlee nit ak fi mu ko yóbbu de ndax kooku daf koo yokk wala daf koo wàññi seetal nag ñii fi ñu jëlee nit ak fi ñu ko yóbbu ndax dañoo yokk nit wala dañ ko wàññi lislaam yokk na nit ba nit gëm ne mën naa gëm mën naa gën malaaka lislaam yaree na nit noonu ba nit dem ba gëm ne man mën naa gën malaaka waaye itam ñële seen école jàngal nañ nit ba nga xam ne in humu illaa ka lanaami bal humu addallu ay mbaa mbaam yi ute na lool école bi résultat am mooy nit ki mën naa góorgóorlu lu gën malaaka yi nga xam ne ñoo gën ci ci mbindeef yàlla yi école bële mën ngaa xiis a xiis ba nga xam ne in humu illa kalanaami ñoom dañoo mel ni ay juri kër rek lañ wala ñoo es juri kër yi rek te yéen bu ngeen jàngee yéen a ngi jàng ay xale ngeen yéen a ngi jàng yéen a xaw ci àddina bi comparé leen rek da gis ne li ma ndax noonu la de wasi'a xëpp na rabbuna borom sunu li kulli shay'in ñeel lépp def ilman xam lu nekk rek yàlla ko xam alallahi ci yàlla moomu tawakkal naa dañuy dëxarlu ci ñun ñu ngi dëxarlu ci yàlla de di wax rabbana yow borom sunu iftax yàlla na nga baynana diggante sunu wa bayna qawmina ak diggante ay nit suñu benn xàq ci dëgg de wa anta yow xayrul faatixina yaay gën aji hubbee de yaay gën aji xatte mu ngoog nag lor lor nañ yonent bi ba yonent bi nag am na buntam ubbi na ko mooy ñaan na yàlla yan na yàlla àtte digganteem nit ñi bomb la leen sànni jeex na léegi tey bomb bi kalaate ci seen kaw ñoom ñëpp ñu torox de ñoom ñëpp ñu xalaku de waqaala wax almalawu sang ya alladina ñaaña kafaru wet nañu min xaw mi yi seen itam ña ñii nga xam ne ay sang lañ yoo xam ne sang yi rek sang yi waxtu wu nekk mooy capitaliste yeeg homme d'affaires yeeg euh, nit ñooñu nga xam ne ci alal la ñuy liggéey ba yëg ci seen bopp ne am nañ ci barab boo xam ne dana leen jox place ci seen biir société ñooñu ñooy sang yooyu sang yooyu nag foo dem dëkk boo dem rek lu fa am ay difficulté rek joxoñ leen baaraami tuuma ne ñoom ñii ñoo ko waral ndax ñoo koy waral de sangi politique yeeg sangi euh, homme d'argent yeeg ñoom ñëpp fit fitne ju am rek boo demee ci ñoom la tàkkee de euh, wa qaala wax almadawu sang ya na alladina ñaa nekk faru dinañu min qawmin shanitam ña lay ne tabatum wallahi nem topp ngeen na shuaybu innakum naka yéen isin boobale la xaasiruna way perte ngeen de ñu ne nag nit ñoom xéefar yi sang yi ñu ngi waare seen nit yi ne leen gis ngeen bu mii bu ngeen ko toppee perte rek da leen di indil de ndax amul dara lum leen jox bu leen ko topp loolu mooy nit ku réer nit koo xam ne yàlla réeral na ko bàyyi na ko xam ngeen firawna waxoon na ne maa urikumu illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashadi firawna waxoon na ko ndax dem na ba gis ne moo nekk ci dëgg li mu nekk mooy yoon gis nga ñi itam ñu ngi wax seen nit ñi ne leen eh, Shuayb bu mële nekkul ci dara bu ngeen àndeek moom da ngeen di perte rek loolu ku yàlla sànni nun ngay mel ku yàlla wucci nun ngay mel da ngay gis dëgg da ngay xam dëgg waaye gis ne sa caaxaan yi nga nekk mooy dëgg gi nga xam ne ku ci nekkul rek nekkul ci dëgg mooy jamono yi ñuy dund léegi rek <coughs> ah innakum booba la yéen idan booba la xaasiruna way perte ngeen bañ waxee loolu nag fa axazathum te jàpp leen arrajfatu xaacu jibril ga ba ko defee jibril dal di xaacu ci seen kaw rek fa asbahu ñu xëy jaas fi diyaareen ci kër seen jaasimina mbit mu ñuy way dee ci seen kaw yi xóom de ñoom ñëpp jibril xaacu leen rek ñu dee dee goo xam ne ku nekk nam la fekkoon nga def rek noonu nga dee ku mu fekkoon nga toog noonu nga dee ku mu fekkoon nga sukk noon nga dee ku fekkoon nga tëdd noonu nga dee ba mu ko defee nag ni leen yàlla mugalee nag mooy dafa ubbi ci ñoom buntu ci buntu safara yi mu tàng tàngaay boo xam ne tàng tàngaay boo xam ne kenn attan attanu ko ndax buntu safara buñ ubbi ci kaw ay nit benn buntu safara bu ndaw palanteer bu ndaw rek dañu ubbi ci seen kaw mu tàng ci ñoom tàngaay boo xam ne xamatuñ fuñ jëm xamatuñ lu ñuy def ñu toog a toog a toog yàgg rek mu mel ni ngelaw su ndaw su upp su neex a neex upp na ñu daal ne ah bon nag nañ daje ñun ñëpp dem ci ron garab su ko defee nag ñu mucc ci tàngaay bii de ba ko defee ñu daldi dajaloo ñoom ñëpp seeni i doom ak seen i jabar ak seen yëpp yëpp yëpp ak seen i maam yëpp ñu dajaloo ñoom ñëpp ca roon garab ya ne ndax ñu am ci seddaay bi nga xam ne ëpp na ci seen kaw de ba ko defee nag mu ne faaxazatum te jàpp leen araj fa tuqaactu jibril ba jibril dal leen xàccu foofu ñoom ñëpp ñu dal di dee de faas ba ñu mujj jaa si di wët mbay way boof ci seeni xoom ci daal yi ci kër sende ñom ñep ñu dal di dé te ku nekk rek ñep nga xóom ñu nga sukk ci seen i de allazina ñaaña kazabu wét nañu Shuayban Shuayb non lañ dé de halaku na ñom ñep kan lam yax danaka woo daanaka saxuñu fiyaa ca seen i kër ya ñoom ñëpp ñu xëy melni musu ñoo nekk ci seen kër ya ha ci seen i kër ya allazina ñaaña kazabu wét nañu Shuayban Shuayb kaanu nekkoon nañu hum ñoom alxaasiri di way perte ña wa mu ngoo waaye ñoom waxoon nañ seen nit ñi ne bu ngeen toppee Shuayb bu dangeen di perte ba yàlla na mu ne mu ñi nga xam ne ñoo bañoon a topp Shuayb ba ñoom ñoo perte de ñoom ñëpp alaku nañ de fa tawalla mu dëdd moom Shuayb ba parce ndax oote na ay nitam ay nitam am nañu nangu am nañu weddi ñi weddi yàlla alag na leen bon moom mission jeex na fi mu nekk nag dafay dem seeti ci leneen lu ko yàlla di def loo de mu ne fa tawallaa mu dëdd anhum walis leen waqaala mu wax ne laqad ablaxtukum man de jottali naa leen risaalaati rabbi yonent ak borom sama wala ona saxtu te ma laaxee biir lakum ñeel leen de man de ona laaye naa leen biir naa leen jëmee ci yoonu dëgg waaye nag yéen nangu leen de bañ ngeen dëgg gi de fa kayfa asa man de jàquti ma ala qawmin ciw nit kaafiri nañu de way xéefar de man de nit ku xéefar daal dee na ci kéefaram loolu du problème ci man de jaaxaluma de xéefar mooy mooy nit koo xam ne amut cosaan amut cosaan lim am lim lim takk amut fu ko wéer ndax boo demee ci turu yàlla yëpp doo ci gis yaa kaafiru amut yaa kaafiru amut ci turu yàlla yi waaye boo demee ci muuminu da nga fekk yaa muuminu ci tur yàlla yi la bon ki gëm yàlla am na fi mu sukkandiku ki nga xam ne gëmut yàlla nag nekk xéefar kooku amut fu sukkandi euh, jëfam xéefar mooy lan kaafir muy tekki mooy nit ku muur nit ku def dara nga ñëw muur ko muur taabal ji booy tëdd muuru dem muur la de nga koy sàng rek pour bañ bañ ko ko gis muur ko ngir bañ ko ko gis loolu la baatu kaafir di tekki bon xam nga loolu nekkut amut ay banqaas ay ay ren yu ko tée ci lim nekk noonu la kéefar mel eh, kéefar amul ren bu ko téye ndax niñ ko waxee léegi tur yàlla yëpp doo ci gis yaa kaafiru waaye di nga ci gis yaa muuminu de ba na nga gis ne muumin am na cosaan am na cosaan am na ren ba moom amul cosaan amul ren de loolu mooy xeefar mooy mooy xeefar de wa ma arsalna ñun de yónni wuñu fii qaryatin cib dëkk min nabii in ab yonant lu dul fenloo nañ ko de dëkk bu moo sa yónne ab yonant rek nit ci dëkk boobu fenloo nañ ko de waaye buñ ko fenloo waaye nag luy topp ci ñoom illaa axas naa ndare bu mbugal nañu leen a ah, illaa axas naa ndare bu mbugal nañu ahlahaa ñooñ dëkk booba bil saa saay ci tat ak ñàkk wa darraayi ak tat ak feebar de waaye nag bu ñëwee ñu di man yàlla naa leen fay man tamit seen jëf ñoom ñëpp dinaa leen nattu nattoo duñ xam fuñ koy dindee ji danaa leen nattu itam ci feebar boo xam ne duñ xam feebar yi lan la de <coughs> su ma bëddal naa ta tuñu watt makaana sayyi'at yi sa barabab mbugal ma alxasanata ak ak ak ak koom de su ko defee nag bu ma demee nag ba mu nga xam ne mbugal nañ mbugal moomu leen toppoon métti woowu leen toppoon ma soppi leen ko bala ba ma leen joxoon muy mbugal ma soppi leen ko muy teraanga muy muy muy muy muy teraanga de muy xiw de bu ko defee itam barabam ñàkk ba ma def leen ñu am ñu ne ñu doon doon ay boroom alal de xataa afaw bañ bëri bañ bëri le xalal waqaalu ñu wax ñoom xeefar ya ne xat xat mës naa xat mës laaloon na aba ana ay baay suñu ak daraaw ak lor wa daraaw ak ak ak ñàkk wa saraaw ak wasaraaw ak ak jàppandal de bu ko defee nag boo xamee ne yàlla yëkkati na ko nag xéefare delluwaat ca seen kéefar ga di wax na nii rek la àddina nii rek la suñ bàyyi amoo daan nañ am di ñàkk ñun tamit ñu ngi nii di am di ñàkk loolu du dara noonu la ko yàlla bindee rek du leen jaaxal <coughs> faaxal naa ñu jàpp leen ñoom ñooñu di wax yooyu ca mbugal ma baxta tan cag bett de su ko defee ñooñu yàlla daf leen di bette mbugal moo xam ne duñu xam fu mu bàyyi koo de waxum ñoom laa yashuruna yëguñu yëgu yëguñu ci waxtu dikk mbu mbugal moom nga xam ne wàcc na ci ñoom de wala anna ahlul quraa donte kon ñoo ñëpp dëkk amanu gëm nañu ci yàlla ak yonentam wattaqaw te ñu wattandikoo kéefar ak ay mooy yàlla la fa tax naa kon tey ñu hubbi alayhim ci ñoom barakaatin ay barke mene samaay mu tukkee ci asamaan de su fekkee ne nit ñi dëgg-dëgg gëm nañ yàlla ni ko war a gëmee topp yonent yi ni ko war a toppee wattandiku ah, wattandiku kéefar wattandiku ay mooy yàlla mu ne bu boobaa man yàlla danaa leen wàcceel barke yoo xam ne ci asamaan lay wàccee ko ci asamaan rek lay dottee ci seen kaw de mu ngi koy def sax ba tey mu ñuy dottil mu ngi def loolu te teroon mu ngi ñuy dottil ay wërsëg ndax asamaan saa ngi taw suuf saa ngi joxe de <coughs> wala wala ki lu fi nag kaza bu weddi nañu yonent yi ñoom di nañ seeni i yonent xas naa xam ñu mbugal leen di màkkaanu ci la ñu nekkoon yegsi bu ne di fàggu ko ci ay bàkkaat ak weddi yàlla faafa amee na ndax dana xoolu alul xure ñu ñu dëkk ndax ñu waa ñoñ ab dëkk an yaatiyahum bu dikkalee leen ba sunaa mbugal sunu bayaatan ca guddi woowum te ñoom naa yi moo na way nelaw lañu de ndax waa dëkk ay nit mbooloom dëkk mën nañoo xoolu rek ne seen kel lal na dara du leen dal óolu luñ mbugalam yàlla ndax Euh, te yàlla nee na ndax da ngeen a óolu nag ba nga xam ne man yàlla duma leen bettee mbugal moo xam ne si guddi lay doon fekk yéen a ngi nelaw wala boobu ma mbo ma bette leen mbugal moo xam ne mbugalam euh, ani at yowam dikk leen ba sunaa mbugal sunu du xam see yor yor de dana ma wàcce mbugal mi ci digg guddi fekk yéen a ngi nelaw wala ma wàcce ko ci yor yor fekk yéen yor yor bi soxlaal na leen waris si nga xam ne mooy xew de boobu te ñoom yàlla bu nu danañu fo waxtu yoor yoor ba ñëpp a ngay fo di caaxaan nekk ci yi nekk afaaminu ndax danañu woonu eh, makrallaahi jëy ak yàlla jëy yàlla de falaa yaamanu xoolu tit makrullaahi jëy ak yàlla illal xamu na rek nit ñi alxaasiru nañu de way perte de ndax ñoom dañoo xoolu nag yàlla leen di jëy liñ soxla ci àddina ay alal neexaayu àddina beeg yëkkatiku addina bi rafetaayu addina bi yëpp yàlla ngi leen koy yombalal rek yàlla ngi leen koy yombalal rek ñuy xuus rek lu leen neex ñuy def yàlla leen di yombalal ñuy ji yéey ji seen yonent yi dara du leen ci fekk loolu yëpp yàlla yombalal leen ko gisuñ ne dara fekk nañ leen ci de waaye loolu yëpp yàlla ngi leen di jëy rek di leen jëy ba nga xam ne euh, euh, bés bu ko téye danga xam ne téye na ko de awalam yahdi Hmm. awalam yahdi ndax bi daluñu lillazina ñeel ñaañe yarisuna danañu doon alarda suuf ci dëkkee ko min baadi ahliha ci gannaaw xalakum ñooñ seen an naka luy mbit tey mbit law na caaw donte sooboon nañu asam naawum ñu jàppaleen ñu mbugal leen bi zunub bi mu ci bàkkaat seen de yéen ñi nga xam ne nag yàlla jubal na leen <coughs> ba ngeen dund gannaaw nit ñooñu nga xam ne bàkkaatoon ñooñ yàlla xalak na leen bu neexoon yàlla itam yéen ñii ñëw gannaaw nit ñooñu bu neexoon yàlla itam mu xalak leen de ci ay bàkkaat yi nga xam ne yéen a ngi koy def de waa wa nat waaw tañ kaañ alaa quluubihim ci xol seen tëj seeni xol ba nga xam ne dootu leen dégg li yàlla santaane de falaa yumi falaa foom ñoom laa yasma'uuna dégg tuñu ak waade de tilkal xuraa yooyu lay dëkk naqsu danañu nettalaale ka ci yow min ambaa'ihaa ci ay soloom dëkk yooyu weesu yëpp man yàlla maa ngi lay nettali solooy dëkk ba yow yonent yàlla muhammad wala qad jaathum dikkal na leen ñoom dëkk yooyu rusuluhum ay yonent seen bil bayyinaati ci ay kawteef yu bit fa maa kaanu nekku ñoon li yuminu di gëm yàlla de dëkk yooyu yëpp yàlla yónnee na leen ay ay téere ay ay yonent waaye li leen yàlla yónnee ay téere ak yonent yëpp taxut ñu gëm yàlla taxut ñu topp yonent yi موتاخيت يالا الاك نالين نيوم نييب ولا قد جاء بالبينات في اي كوتيف فما كانوا يكونون ليؤمنوا ديغم يالا بما كذبوا تك ويدي سين دي سي سبب سي كيفر سين موتاخ اه يالا الاك لين نيوم نييب من قبل تي يك دي كذلك كم لينكان جي ني لينكان كولي هيفر يي يتبع الله لي لينكان يالا على قلوب الكافرين سي كولي هيفر ييب هيفر ييب يالا مو تيج سين خول باغا خامني mënuñoo dégg alxuraan mënuñoo xam li alxuraan di wax ndax boo demee yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko booy jàng alxuraan damay muur xoli xéefar yi ba duñ dégg li ngay wax de seen nopp yi rekk koy dégg waaye seen xel yi ak seen xol yi du ko dégg de ah min ahadin ci fa wa wajadnaa fekk ti ñu li ak sarihim gën jaa seen min ahadin kóllëre de xéefar yi yëpp yëpp li gën a bëri ci ñoom li gën a bëri ci mbindeef yi bëriwuñ duñ matal kóllëre de mën nañoo sàmmanteeg yow kóllëre waaye ñamaas ñamaas ñamaas ñuy dal di ciy génn di seeti leneen buñ ci génn nag lay bu nekk lañ ciy génne lay bu nekk lañ ciy génne de kii nangam kii nangam kii nangam fekk nangam jooju ngay wax ci moom seetoo ndax mi ngi ci yewam déet nangoo doo nangu mu nekk ci moom nit ku nekk keneen ki la waaye du moom. keneen ki moo manqué keneen ki moo tuuti keneen ki moo suufee keneen ki moo ñaaw waaye moom mat na loolu mooy mooy mooy mooy nit su ko defee nag yow su fekkee yaa ngi mbugal yaa ngi yaa ngi tuumaal nit yaa ngi sekkanteeg nit kóllëre nga dem ba kóllëre googu sàmmatoo ko boo ciy génn génn ci rek waaye rek bu ko utal ay lay yoo xam ne moom ngay layee ne moom nga ci génn boo ci génne génn naa ci rek yeex na ma àndoon ak moom àndatuma ak moom jeex na mo gëna mo gëna gatt waye di ko utal yeneen nak loolu moom matadi rek la wayn wajan na deen ñu fekk ak saroom gën jaabari seen wayn wajan naa naka danañu fekk ak saroom gën jaabari seen la fasiqun la faasiqiina ñu wéggé génn top yalla dé li gëna bari ci nit ñi ñom dañoo wéddi yalla dé suma baas na top ñu min baadihim ci gannaaw yonentu yooyu mu jiitaloon muusaa Muusa bi ayatina ci kawteef suñu juróom-ñeent de yàlla yonentu yónni yonentu yàlla Muusa ci juróom-ñeenti kawteef ba ci eh, yëpp yàlla dina ko tudd ci saar wi waaye taxut ñu gëm de mu ne loxoli géej ga ak bam ko xottil géej ga ak itam nag wa ak itam njéeréer ya ak deret ya ak teeñ ya ak eh, ak mokk ga eh, juróom-ñeenti kawteef yoo xam ne yàlla won na ko feeñal na ko ci loxo yonent yàlla Moussa ndax nitam yi gëm waaye ke eh, kéemtaan bu feeñ rek bu jeex bu ñaanee yonent yàlla Moussa ba bam dindi ko rek ñu delluwaat ci seeni i ila firawna jëm ci firawna wa malai bi ayatina bi ayatina ci kawte suñu juróom ñent ila firawna jëm ci firawna wa malai ak nitam ña fasala mu ñu weddi bi ha ca moom fasala mu tañ xéefar bi ha ca moom de fanzur seetal kay fa kaana naka nekkee aqibatul mufsidina mu jëg way yàq ñi ci kaw suuf de seetal nag ñi nga xam ne dañoo yàq ci kaw suuf yépp seetal nañ mujjee ñoom ñëpp yàlla xalak na leen de waqaala wax Muusa Muusa yaa firawna yow firawna inni naka man rasulun ku yónni laa min rabbil alamin ma tukkee ci kay borom mi ndeef yi de Moussa yàlla yónni na ko ci na ak mi ngeen xamee xissa bi mu ànd ak Moussa mu ànd ak Aruna rakkam wala magam ba mu demee ci yàlla yónni ko ci na ak nit ci Firawna yi bi mu ñëwee ci pale Firawna bi mu ne toog na fa ren toog na ci buntu pale bi ren ba déwén mënta gis Firawna ba mu ko defee benn waay ne ko yow de am na ñaari nit ñu toog fii daaw ba ren ñu ne yàlla leen yónni mu ne ko mënoo leen woon a entré bañ reetaan leen bañ bañ bañ bañ mokke leen ba bàyyi leen ñu ñëw yonent yàlla Moussa euh, Firawna dal di koy dal di koy euh, ubbil mu dal di dugg bi mu duggee lim Moussa euh, na laaj ko ne ko yow nga ne lan mu ne ko yàlla ma yónni yàlla ma yónni ci yow de mu ne ko yow yow Moussa mii xale démb bii ci sama biir kër maa la amee maa la yar maa la defal lii maa la defal lii yëpp maa la ko defal ngay ñëw tey naan yàlla ma yónni bon luy sa te bon li ngay wax foo ko tëral Moussa ne ras inni naka man rasulun ku yónni la min rabbil mi mu tuggee ci borom mi ndeef yi de yàlla moo ma yónni ci yow xaqiqun أيه يولا على أن أقول بوقت ما على الله ولا أكذب أن أي نرد من ده ورما فن الله ورما دوت الله أي فن لما لا وخرج دق لا إلا الحق نر دق دق رج لا وخرج ده شيء يلا ده قد جيتكم ديكن فرعون نكواو سفك يلا لا يوني أنا لن موي ونني يلا يا لا يوني موسى نقد جيتكم dikkee na ma leen di bayinatin ci kawteef min rabbikum tukkee ci borom seen de indil naa leen ci yàlla la bàyyi ko de léegi nag li ma lay wax yow firaaw na nga dégg ko fa arsil xebalal maa yi ànd ak man ah, ñu ñu dem saam bani israila bani israila léegi li may ñëw mooy nga jébbal ma bani israila rek ma dem ak ñoom saam de ndax firaaw na fekk boobu banu israila ñu ngi woon Égypte firaaw na jaamloo na leen jaamloo leen seen at yu bëri yu juróom benn téeméeri at yi ñu am foofu yëpp ay jaami firaaw na la ñu woon lu leen doomi jaami régime bi dal ku nek ci régime ba rek ba ci Firawna mo leen mujjé mom de bam ko defé nak mu ne ko légui nak damay ak may jox sama nit ñooñu ndax Moussa kenn la ci ñoom Moussa yahoud la comme yahud yi ba ko defé nak Moussa dal ni nak damay jox sama nit ñi ma génn ànd ak ñoom de xala wax xala wax Firawna ne ko nak in kunta nem nek nga jité dikkee nga bayatin ci kawteef faati dikkeel bi yaa ci moom in kunta mu nekk nga mën a saadiqin si way dëggal ña mu ne ko nga ne andi nga kawteef mu ne ko waaw mu ne ko acca andi su fekkee kawteef boobu dëgg la ko ñu gis ko ba mu ko defee nag Moussa fekk indi na kawteef Moussa ba muy jógee na yàlla def koo jox ed woo xam ne ah, fanweeri xasabu la ci guddaay comme taxawaayu Moussa moo ko itam yu ñoo em taxawaay na ko ed woowu nag demal ànd ak moom et woowu yàlla di feño di wax ak moom Moussa nga ko amee woon mooy wa maa tilka bi yamiinika yaa Moussa qaala hiya asaaya atawa ko woowu balaaya ba jeex mu ne ko alqiha sànni ko Moussa dal di koy sànni ba mu ko sànnee rek mu dal di soppeeku jaan Moussa bëgg daw mu ne bul daw demal jàpp ko mu dal dem jàpp ko mu soppeeku waat edde et woowu nag moom la moom la yonent yàlla Moussa indiwaale ci Firawna ngir dëggalee ne yàlla ko yónni de ba mu ko defee nag falqa tam sànni falqa te sànni Musa Musa asaahu yi xetam wa Moussa daldi sànni xet wa rek fay daa am ci la fekk hiya moom soobaanun njàngoor la mu biinun juda daa aji rëy mu sànni ko rek mu nekk njàngoor moo xam ne mu rëy la ci kanam firaw mu firaw na dal di tiita tiit dawa daw tita tiita tiitaange joo xam ne nee nañ firaw na daana am ñeent fukki guddi du dem douche waaye ca ca tiitaange yooyu jaan ji ci kawam ci la tiita tiit ba nga xam ne fi mu ne mën a tuté mën a boppam fu mu toog rek mu ngi yàq ay tubéyam de ba noonu la deyaale ba ko defee firaaw ne daal di koy lentalu yàlla ne ko téyel téyel seet bi téyel seet bi mu téye ko de ba ko téyee daal di indi te beneen kawteef boo xam ne Moussa doonu toon nit ku weex tàll tàll nit ku tikk woon bam ko defé Moussa dal li jël loxom duwel ci ci posam génne duwel ci mbagam génne fayda ya baydaw mu génne ko mu nek fa nazaatam génne yadahu loxoom fayda am fi la fek hiya mom bayda waji waa la mu di borom ak ceeñeer be bam ko defé mu duwel loxom génne rek mu dal di weex tal tal tal melni e e naa naka la sahibun bugal la nuñ eh, eh, eh, saaxiru njabar la alimun ju daa aji kawe ci njabar de gis nga pexekat yi ñëw nañ firaw na fi nekk nii mu ngi ci buntab jaaxle nu muy def parce que laaj na Moussa tegtal Moussa jox na ko tegtal tiit na waaye nag ñi nga xam ne nag seen intérêt yi dëppoowut ak firaw na di nangul Moussa ñu commencé nag di def seen i pexe ñoom tamit nuñ fi nuñ fi téye firaw na de ak nu mu toogee ba mu ko defee ñu yow ne ko ay eh, kii njabarkat la rek du dara li muy def bu mu la jaaxal njabarkat la de yëpp pour dalal xelam pour mu mën a toog ci nguuram yuriidu ko dana mu namm <coughs> yuriidu dana mu danañu dana ñu namm ak ñu koy jëkkum bu ñu génne leen min ardikum ci ci ay ci suuf seen de fa ma za taamuruuna moo ànd lu du digal ma ko man firaaw na de gis ngeen njabar gii yëpp ñu koy def dañ leen a dañoo bëgg a génne leen ci seen nguur gi rek doonu si ko loolu mooy xelam nguur xelam niti àddina booy ñëw bu muslix ñëwee ne dafay éwénal lu muy dugal ci boppi nii ñëpp kii kat li ma am rek la ma ñëwee moom la bëgg nangu si man bon nag léegi loolu te li ma nangu si man nag yéen a ko bokk bon nag seeni seeni pexe ñu tëral seeni pexe ñoom ñëpp ah, ba nga xam ne ah, danañ danañ danañ xeewaat seen bopp ci li nga xam ne moom lañ yaakaar ne mooy seen dëgg mooy seen teranga de mu ne leen def leen a bëgg a génne rek nangu seen nguur gi kii utul dara nguur rek lay ut te fekk ñoom loolu nguur taxu leen a jóg de romb nañ nguur bu yàgg léegi nag yéenay samay yéenay samay conseil lu ngeen ma lu ngeen ma digal lu ngeen gis ne moom laa def xaaloo xaalu ñu ne ko arjihi yéexee ko wa axaahu ak mbokkam ma wa arsil yónneel fil madaini ci yende ya hashirin mit mu ngay ay fangalen de legi li ngay def dal moy mu euh, waxal musa mu may la waxtu rek mu ñal waxtu rek nga dajale kat yi da dajale nga nga mën dajale ay njabar kat yo xamne da leen indi mën dajale àddina bi yeb ñu ñëw fekkee bés boobu jaatu <clears throat> ko ñu dikke la bi kulli sahirin ci bepp ay njabar ali min dee ay gën musa ay gëna xam muusaa Njabar de bu ko defee nga indi njabar yoo xam ne ñi gën a xam Moussa Njabar ñu ngi ci de wajaa ata dikk asaharatu njabar ya firaw na firaw na de ba mu ko defee njabar yëpp ñëwal nañ firaw na léegi bañ ba ñëwee nag lu njëkk a wax mooy lan xaala ñu wax ne ay na naa ndax dana nekk ñeel ñu ajëran ab yool la ajëran ab yool in kun naa nekk nañu ndax ñun alxaali bi na di way not ñu ne firaw na ndax ñun bu ñu ba not yonent yàlla Moussa ndax da nga ñu fay moo gis nga ba nit rek ñoom loolu ñu ut rek dara yaa xaalis rek ndax da ndax da ñu fay xaala wax firaw na naa am waaw waaw danaa leen fay de te du ma am sax ci fay leen way nakum naka yéen la minal muqarrabiina aji bokk ngeen ña ci ñun jegeel ña ci man de du ma leen fay xaalis rek em ci waaye dinaa leen boole ci ñi nga xam ne danaa leen jegeel sama bopp di leen laaj ko defee nag ñu dal di daje yonent ya Moussa dana leen dajale e, na dana dajale nit ñëpp ci bëccëg boo xam ne waa Firawna waa waa Misra yëpp ak dëkk yu ko waroon ñëw nañ fekkee si daje boobu nga xam ne Moussa dana ko daje ak njabar yi nga xam ne ñëw nañ pour e, jog kiyanteeg moom weranteeg moom bañ ñëwee nag Moussa xaaruñu wax yaa Muusa yow Muusa imma an tulqiya benn nga sànni xeet sa way maa nëkku na wala ñu nekk nun nax nu ñun almulqina ñoom nga way way sànni ya de ñu ne Muusa léegi nag ñu ngi nii dajane léegi nag lenn mooy xew yaa imma nga njëkk a sànni sa et wi yaa imma ñun ñu njëkk a sànni Muusa ne leen njëkk leen a sànni bàyyi jëlee na foofu benn xikma mu ne xikma bi nga xal li ci nek ci hikma ba tax ni yabar yi tuub moy ba lañu def dara ta musa ne ko ndax ñu ñëk def wala nga ñëk def barkeeb tàggu boobu ñu tàggu musa mo leen may ñom itamit ci ci ba xex ba jexé ñom ñep yu mëna jébalu nangul musa de bon barkeeb tàggoo baxna na xaala wax leen ulqusan leen maa antum ma ma yéen sànni leen de fala maal xaw ba ñu sànnee seeni xeet saxaru ñu njabar a yoona naa si bëti nit ñi de bañ sànnee ed yi ed yi daldi soppeeku ay jaan jaan jaan jaan façon jaan bu nekk seen te juróom ñaar fukki eh, eh, juróom ñaar eh, njabar lañu woon ñoom ñëpp ñu ñëw indi seeni at ba ko defee nag na ñëpp daje nañ ci Firawna ah, ba mu ñëwee nag ñu sànni seeni at et nga gis jaan jaan jaan yoo xam ne wastarhabuhum ñu tiital nit ñi de nit ñi ñëwoon di seetaan yëpp ñoom itamit ñu tiital leen wa wajaaw ñu dikkee bi sixrin ci njabar azimin mu daa ji màgg de yàlla mu ne ñu ñëwee njabar goo xam ne njabar gu màgg la xam nga yàlla lu mu wax ne màgg na màgg na de wa ba mu ko defee nag Muusa dal di tiit dal jaaxle lool ndax lan ah, ndax ndax Moussa dañ ko ñu ko wax ne ndax ñu sànni Moussa ne leen sànni leen ñu ne lu tax yonent yàlla muusaa di yonentab yàlla di digle loo xam ne mooy yàlla la ndax ku ne xam na ne njabar mooy yàlla la lu tax ñu laaj ko ne ko ndax ñu sànni ko mu ne leen def leen ko loolu euh, waxkat yi rek ñu ne tontu bi mooy ne lépp loo xam ne dina àggali ci lu baax loolu lu baax la de gannaaw ndigalam loolu dana agali ba nga xamne sahara yoy ñoy ñooy mujj ñoom ñëpp tuub topp yonent yàlla Moussa loolu dara neeku ci ko bi ne mu ne la moom ko defé yonent yàlla musa dal li xawa a jaaxle nag tiit tiit ndax njabar gi dal deug deug njabar bu mag la de andi nañ ay xeet soppi ko muy jaan may tamé tet la amé moom laa bëgg soppi muy jaan su fekkee foofu rek la yëf yi am bu boobaa bon sama njabar sama taxawaay du am njëriñ te du def euh, benn tasiir ci li nga xam ne moo ma tax a jóg bon nag léegi nag euh, yéexi jaaxa yooyu commencé di dugg ci xel yonent yàlla Moussa ba mu xaw a tiit de ba mu xaw a tiit jaxasoo de waaye nag terewul mu gëm ne moom yonentab yàlla la li muy def yàlla ko ko sant li yàlla santaane nag dara mënu mel ni moom de wastarhabuhum ñu tiital nit ña wajaaw ñu dikkee bi sexrin si yabar azimin gu aji màgg de yabar gu màgg màgg màgg ba nga xam ne yonent yàlla Moussa xawoon naa jaaxle de